ba tey ñu ci téere bi nga xam ne mooy waxtaan ci nan lañuy ñuy fecci aarif feccinu aarif bi mm-hmm. xam ne tey dafa mel na dem nañ ba boo ko laale sax ngaa laal góom kenn warta laal mm-hmm. te nag góom ndeexaale moom day rey borom te bu fekkee ne mën nañ ko faj nañ ko war faj mm-hmm. ah, léegi maa ngi waxoon pays yi ngeen ropp yi ma romb yëpp maa ngi ci pays Cheikh Tidiane waa kër Cheikh Tidiane nañu wax ci mbir mi ci laa nekkoon tey nag maa ngi ci passe quatorze bi te mooy téere bi nga xamante ni mooy samsul arifina pour biir raxso arifina naanaa awliyaa seytaan awliyaa rahman waqaal wax naa beneen waaye ci waa tariqa bi mu nga tudd alaamatul axdari rahimahullah fa raxsu wa suraaq wa tas tasfiiqu حمدا بشكر الله لا يليق وإنما المدلو في الأسكار الذكر بالخدور والوقار وقيسا حركة نفسية إلى محل قلبة القوية فرخص فتشي وسراق أيهو تكو وتصفيق أكتشو حمدا تتيكو bi sikkir laa ci de tudd yàlla laa yelle ko jaaduwul na hmm. déedéet waaye inamal man loobu nekk luy sàkku fil askaay hmm. a sikkur lu may nga sikkar bir xuddóori nga teewlu hmm. wal waqaari ak wegu loolu lañ bëgg ci kuy sikkar na teewlu wegu waqaaru saa yu lut loolu xarakatun yëngatu nafsin bakkan yëngatu bakkan la ilaa maa xalabati lu mooy notel ak xaw yi boo xamante ni notel boo xamante ni xanaa naka tey ko xam ne dem dafa toog rek ah, xam te dikkal ko wala deme nag ko noonu adratu xarida boo demee ci page cent dix-sept bi ah, ca wax hmm. waa ulaay yi mboolem gaa yi ma la liman liman maa kamaalim ànd ak seen mat ga لم يجعلوا دفن مستدف أرق سفكي والله أفو من آداتي موكسين تامل في طريقتنا سن طريقة بي نيوم جيل بيكي دي كموكسين آدات أتجاني تمقان تجان موقف فتك وطريقية وأقول ما دوغنا من أمد جي لإخواننا سن بقي المتشو بينا يقام لنيوان نكس جسم الذين يقام لنيوان أرق سفكي rasa maali mooy seen capitalu alal mm-hmm. fil faydati ci faydu bi ak tariq wa tariqati ak tijaaniyati mm-hmm. nga xam ne ñoom buñ fecc rek yaakaar nañ ne bokkuñ ci faydu bi ba tuddee ko sax faydu saani mm-hmm. maa ngi leen di wax ne waajibun war na aleykum teen an tataqayyadoo ngeen tënku bi afhaali ci jëfi Seex Tijaani wa taxtadoo ngeen roy bii ci Cheikh Tidiane boobu xulafaa yi ak ñi xam ne ñoo ko fi uuti mhm. raashidina ñi nga xam ne ñoo jub nag laa wax li ana tariqatoo ndax yoonu Cheikh bi mhm. moom ne tuñu mbin luñ ta luñ tëgg luñ tabax laa soo mosiyatu tuñu dëgër la mhm. bil kitaabi al quran wa sunnati ak sunna boo déggee tabax ak raax ciment rakkiste ko moom lañ boolante al quran ak hadis tabax ko tariqa bi كما قال نقل وخي رضي الله كرم الله يعلم توم طريقتنا سنيون حاسا بي مشيدة لدغر الله بالكتاب القرآن والسنة ليس فيها نكت في دقل لنجي تبيت دقل لن نبالي أمو تبيت ولا وقت ولا قصة كون أمو نجر أمو لنجي نجحسيت لن ننجي كون دين تبيت أمو تبيت لو جسي بيت رك tariqa tijaan dafa fangaral mhm. wala talawun amul ay couleur amul ay couleur benn couleur la am mhm. moom tariqa bi amul lu nëbbu ci biir lu deñ ci biir amul njaxase amul couleur mhm. man aadasa ku sos fiha ci tariqa bi maa loo xam ne laysa minha bokk na ci bokk ci tariqa bi af xarahu yal na ñàkkuloo ko allah yàlla laa ilaha illallah yal na ko yàlla ñàkkuloo fa yal na weer ko alam lii de sityaan ma ko mhm. ku ci dugal lu ci bokkut yal na ko yàlla per daal yal na ko yàlla weer te dëgg dëgg yàlla weeru mi ngi am luy wane ne weeru nga mhm. mooy ko dajeeg yow doo amee melokaanu jullit mhm. lee ngay amee doy dal sariha doy dal tariqa am na ñoo xam sax tey bari naa gis ñoo xam ne lu ñu leen jox sax askaaru tariqa bi tariqa bi da ngay dikk rek ñu yoon la yoon la joonu gis bu rek nga nii la rek nga daal da ko noonu mhm. waasal xawlu boobu wax waxu Cheikh Tidiane wa aydun tëkku la wa sajurun jàjj la mhm. mi ne cheikh bàyyi ko cheikh radiallahu anhu cheikh ci boppam moo ko ñan la ko wax li la si na ñeen yaa xam ne yoo di sona dañu sos umaroon ay mbir mhm. fii tariqat yi ci yoonam bi maa sos boo xam ne yu xaale dafa wuute xaa noonu sariya ci tëru sariya lépp loo xam ne dëpp nag dëppoo ak sariya tëru sariya rek al muhammad yi bi xam ne mooy sariya muhammad ya Cheikh daf leen aaye ma ndekku leen leen pour buñ def lu mel naka loolu mhm. warax su fecc fi jëmee amaaka ni dem place yi mhm. ah, ak dafa kéeku nga dem di fecc mboolem place yi mhm. addiini it place yu diine yi nga ciy fecc wa duniya te ak fecc nga xam ñu ko def ci feccu palaasu àddina bi diggi diggi mbedd yeeg yëpp minal bidaa bokk na ci bidaa al muhdasati boo xam ne ko sos fil fayda si dañ ko bidaa bu sos la wa tariqat yi waaye loolu doon ci ixwaan yi mbokk yi alxaarif yi ne ni xam ngeen maa ngi leen di ñaan fan na ko nañ nekk miroati sanaat yi bokk ñaa xam nañu sàmmi sariya bi wa tariqati ak yoon wi mm-hmm. wal faydatu ak faydu bi mm-hmm. nañ ko sàmm mooy ñan àll si na ñi xam ne laa yaraaxoona duñu sàmm mm-hmm. ku soo sa antim li nga xam ne mooy cëru bakkan ndax nekk ci diina di sàmmaale sa cër bakkan baaxul rawat na tariqa rawat na ñu wax faydu maqaam maqaamaatim ak seen taxawaay la sàmm war yaa saatim ak seen ak càng loolu boo duggee fii intérêt bakkan da nga koy teg fële wala moo am xam leen ne anal xalifata wuutu laa yàqut nekk bi na subi ci askan sama baay doon euh, grand sëriñ mën naa nekk ci buy sëriñ aada yi de waaye bu ci lislaam mm-hmm. sa baay bu nekkoon Ibrahima moo ñu ko jàngal ba ko yàlla defee na ko indi jaay ko naa si imaaman fal naa la yaay imaamu nit ñi mu ne koo min suriyati mu ne ko ah déet nag lay na lu adi salimu doom ji sët buy tooñ du bokk ci sama li ma dël sama imaam ji de imaam dama ko def doom ji tooñ ah kon dégg nañ foofu ah yaqub mi tudd israil di doomi isaax doomi ibrahim ay sëtam dikk nañ yàq fa xalafu min badin xalafun adaw salaw tabasaat fasaw fa yàlqaw na dañ dugg xëyan kon nag léegi donn sa baay ne may xalifaam nañ seet nañ ko utu te dafa am li ñu xalifa ak xalf ak xalifu bokk ku uutu sa baay ca nam nekkoon doon dox ca njub ak mbaax ak defet booba nga tudd xalifa soo dikkee uutu ko ci yàq ak jaxase ak bonal booba la tudd xalf moo tax alquran wa xalafa min ba'dihim xalfun waxul xalifa ñu nag ñàkk a dégg arab ak ñàkk xam taxawaay yi moo tax ñuy jël foo ne ku sa baay nekkoon rek di sëriñ ibnu sëriñ ka seex doomu sëriñ comme sëriñ déet ibnu médecin ndax ka médecin la déedéet waaw léegi nag foo jëlee kon nag ibnu sëriñ ka seex ah moo tax misiri ma ne man de xalaas xalaas lii daa hybride mystique ba nga ko xoolee ba yàgg bu naa say lii daal wóoyu saytaan la saytaan ma wóoyu message bii message say message la te nag ñun gis ko fi mu ne bàyyi nag mu ne la rey doomi sëriñ si ñuy jël leen di bégg bégg rek boo di kii doomu sëriñ ba nga jël ko da ko leewu da ko jox xaalis da ko may nangam nangam mu màgg ci loolu ah tàmm nag ay ay kii moo tax suñ mag ñu njëkk ñoom nañ daan yaree dañ lay jël génn la ci dëkk bi yóbbu la nga tumaraanke ci àll ba ca daara ja mm-hmm. nga nekk foofu ba nga xamante ne jàng nga tàmm yi métti ba dikk nañu ñu uuf la di la ci yoonu tra ba nga mat waaye tey ñun ku ci dikk rek dangay dem ci ak mbal ak da nga am naata yaata yumbi kon foofu laa yemal ci pays Cheikh gëstu nañ ko moom jeex mm-hmm. gisuñ ca lu mooy njub ak mbaax ak deferu ak defere mm-hmm. fan laa jëm léegi maa ngi jëm alxadratul ibrahimiyati pays bi àq ne mooy شيخ ابراهيم موكا تخاو موي في ني تخاو وبعدما انتقلت غنا بما تو من هذا شيخنا تجاني بايكو شيخ تجاني رضي الله عنه واصحابي اك ادوم رضوان الله غرمان يالا علي يالا يالا نيك توم انتر داوا تي لغي الى الحضره تيم تي بي با الابراهيم قلما شيخ ابراهيم موكو جيت اقول ما نجي واخ تنو واخ ويرنما فإن الشيخ إبراهيم إنيس آه شيخ إبراهيم إنيس رضي الله عنه من عل من عل علم علمه كو خم حالي ما دنا خمنا أنه هنا خليفة شيخنا تجاني boo ko xoolee rek da nga xam ne li ñu ko tuddee xalifa Cheikh Tidiane ma kon is ana ne xalifa Tidiane ma ko wax radiyallahu anhu uma fa amara fa am faydati mbiru faydoom bi waadeetu dafa leer nañ ñi kësam si nahaari ne comme jënt bëccëg jënt bëccëg mm-hmm. leer na say xanaa ndax suñu sëriñ bi atijaani axbarana moo ñu xamaaloon bi amriha mbiru faydu bi mm-hmm. qabla sóoriha njëkk feeña faydu bi xaala mm-hmm. wax na fii ifadatil ahmadiyati benn téere bu ñu ci ifadatil ahmadiyati bi moo waxoon ne taati dana mës a ñëw faydatun ab faydu xaala asxaabi ci sama àndoye mhm. dana dikk xataa yet xula ba dugg anaasu ñu fi tariqa taasum tariqa bi mhm. afwaajan ay groupe ay mbooloo dañu dugg wa taati dana ñëw xaasil faydatu boobu faydu mhm. wannaa su fekk ni ñu fi xaayatimaa ñu ngi ci day loo xam yàqu la ñu ko nekk ne diq ci xartak wasi dëtt ak jafe-jafe faydu boobu ba muy dikk daan fekk jamono boo xam ne jamono yi xat-xat ak jafe-jafe mooy lan ah jamonoy 39 40 jamonoy 30 ah ah xam nga xam nga léegi mu ngi ta feu baa nga tàkk si 30 30 jëm 39 diggante boobu circonstance bi gën a jëfe ci àdduna ci la faydu bi ci la faydu bi feeñ waxi na maa bala xanaa bala xaaba ko ci Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim nag ba mu téyee faydu bi xarax fi réex la ko Conakry ci réex la ko Conakry ci paas set ba moom ba mu ko jëlee ma ne wa saaka kullun faydatu tijaani mm-hmm. madal Moustapha waral adnaani mm-hmm. wa saaka kullun minatu manaale ahmado fi siri wal ihnaani ba mu jeex mm-hmm. waaw woyu woowu wenn woyu laa indi bàyyoo ca des mu ne wa lii ngeen ne kullun lépp faydu tijaan faydu tijaan fan la madal Moustapha alwara madal Moustapha wara adnaan ah, moom la faydu kon nag siratan ak minhaajan ak tariqata lu alquran loo am rek alquran na ko tudd wala yustaqaamoo ala tariqati la bu ngeen defee istiqaama ca yoon wax xam nga nag nit ñi dañu waroon gëm lu tax ñu tuddee ko charia charia mooy firi yoon soobu waay tariqa jaarwaay ngir ba tey euh, jaarwaay lépp ak subulu mu am ñeenti subulu yoon sabilaay kon nag am na ëwalu aaxiru saahiru baat lépp lu fi gis rek kaat kaat lay doon kon nag boo ko demee boo déggee ñu digg tur nga nag ah lii bidaa la ah yaakaar naa boo xamee da nga xam ne kon nag yàlla moo xam ne damaa leen sénatu ak minaay ana luy nax ju ana sa nax ju gannaaw Sénégal jàpp ana sa nax ju luy nax ju nag anoo ci buggee tax ñu tuddee ko loolu xamu na ne ñun dafa am nax yoo xamante ne fa mu jaaree ba dugg ci biir diina ji billaay suñ doom yi xamuñ ko ñañ ca dugal it yu ci bëri xamuñ ko waaye nag yow dangaa ngaa waroon man damaa bëggoon balaa may la seete ay riwaayaat damay seet alquran loo xam ne mi ngi ne yax bu wér ci alquran doo dem di seeti ay riwaayaat lépp mi ngi ci alquran mooy lépp mi ngi ci kon nag boobi asa ci lii nag mm-hmm. gannaaw la andi woon la yont bi indoo rek moo tax islaaman wa imaanan wa ihsaan bañ ko indee diina diina tuddee ko islaam tuddee ko imaan tuddee ko ihsaan yëpp mooy war ne loo gis am na saayir am na baat ak baat baat baat waaye nag bu fekkente yow nga man ci rek tubaab yi nag ñoo ñu def loolu ndax doole lislaam nekku ci biti ci xol la nekk doole lislaam nekku ci manifestation ak làmmeñ doole lislaam mi nga bu xol bu xol yi dëgg rek gis nga bañ gisee bañ demee ba xeex l'islam masuñoo gagné l'islam ba ci 1713 ñoom ñoo ne nañ changé seen position ji suñ koy changé mënul leen dara dañuy tas diggante jullit yi élimaan yi dañoo leen déggal gone jullit dafa déggal bàyyam lu ko bàyyam du ci teg baat jabari jullit dafa déggal jëkkëram du ca teg baat ah sa taalibe wali yi dañoo dëgër lu leen seen sëriñ du ci teg baat ñii ñoo àndoon ak gouvernement l'islam yi ba tax mënu leen dara léegi nu ñuy def léegi nañ jël ay volontariat ñu dugg seen biir ba jàng leen xam neen ñu seet fu leen di jaar nag wallaay bari na sëñ daara boo dégg tey ñu ñu ko ñoom ñoo formé woon ne nañ am ñoo xam ne dem nekk ay sëñ daara bu paree ñu def ay gijaawaale ñu taqal leen ko billaahi li ma wax nii moo am te duma ma giñ mukk ci jaaxal waa ñu ne dañoo dem ba dugg ci dara lañ ci man de Oustaz Gueye du ma lang benn tariqa mënu maa langloo ci dara man dëgg lay xool fu ma ko gisee baax na fu ma ko gisut dem naa suma yoon ndax xam naa luy tariqa dëgg dëgg tariqa am jiwut ak kii li ko ni yàlla siraatat ak minaaja wa bi xaasa ci lii nag nafa ñu dégg lu ñu dégg an na faydatuhu naka faydoom bi aynu sariati mooy jëmi saria al muhammadiya waa xaqatu tariqati mooy dëgg-dëgg tariqa al ahmadiya lii la nekkee moom dafa nekk aynu saria moo tax bi saayir sari wa noorin mu bin urab bii man la yare saalikin dama jël saaliru saaliru saaliru sariha mooy yar biti sariha mooy yar cëri biti sàmmal sa dégg sàmmal sa gis sàmmal sa fóon sàmmal sa mos sàmmal sa cëri biti yii sariha moo la koy sàmmaloo ba nga demee nag mu yàlla ci xol xol bi nii lay mel xol bi jikko yi da ngay rafetal ci xol moo tax yonent ba mu dikkee innama bu'istu li utammima makarimal lu tax waxoon na sariha kon nak ñaar yëpp la indi man makarimul akhlaq la dik pour régler ko kon nak makarimul akhlaq doxinam moy doxini biir lay doon moy xol xel roow yoy man la ko yare ci biti ci bit lañ ko ko yare mm-hmm. boo ko yar nak kon da ngay xam na muy ci bir mm-hmm. ah nga dem dawalee ko fofu kon nak <clears throat> li day ni ko xam kama qala sabiqan wa kama qala aidan isa sara qaybna si surtout waraahu mm-hmm. wa in hal yawman farmasiru bairu Mm-hmm. Cheikh Ibrahima mu ne Issa Saara buy dox xëy naa si gën ci nit ñi. Mm-hmm. surtout ma dox rek walla woo ay ca gannaaw maay fu mu teg tànkam lay tànk tànk. Mm-hmm. wooy na xale bu wàcc yow man ca bis ba. fël ma sur dox day ba sur ba sur bay sori na bi maanaam dox bu sori judd na. waaye nag nit ñi jàpp ne yonent bi dafa taxaw yont bi taxaw. waqaala ay den ba tey alamanil yow man diraasu sunna maa ngi dara li qaidi lil janna. alamani mit ne ma woon Ibrahima Niass lu ma mit al yow ma tey indirage sunnati ràpp ak sunna moo ma gën a métti ban sunna sunna maa yi dalaa lay ki nga xam ne mooy ifance rek xaay di ki nga xam ne moomay jiite Omar nit jaan ci ki nga xam ne moomay jiite ñoom àjjana sunnaam bi nit ñi yàq tey ak moo métti kon nag lii xam nga nit ñi bu jokkoon ahlu sunna xam nga ñu ko tuddee woon mooy borom ngir yi nga xam ne ñooy ñeenti ngir yi baña day ci basara ak digënti turk boobale way na bi nga xamante ni dem nañ ba ci le nga maam fekk na moy ne mooy xam fa xam fa daje na ak ci nga xam ne mooy ki xamantini moy muhammad Abdou Wahab ci basara ba nga xamantini ni tëral nañ ngir mu bes mi ñu tudde ko ngiru ahlu sunna ba nit ñi fàtte sax foog ne ñom bi boy ngëru ahlu sunna te deug degg yàlla ñi xala xam bu ñu ne salafu saali mooy ñuy ahlu sunna te nag kon mag yi nga xam ñoo fi nekkoon ak sofiyanke yi nekkoon ci euh, kii ba da boo demee ba tey ñu ngi ko tuddee ah kon nag ahlu sunna buñ ko jëlee tuddee ko benn groupe ab tariqa ñu tuddee ko sofiyanke ñu tuddee ko benn groupe déedéet sofiyanke du doon group boo xam ne ñoo ko sofi salafiya sunna yi nekk groupe déedéet du su ko defee daf ñu indil ba moo ñu indi ruuxu lante bi yàq suñu diggante hmm. waaye asoofi saafi ak sëlëfu saali ku set ku koo xam ne mooy ku set wecc ka ak ki nga mooy ku deferu ka ñoom ñaar mësuñoo jub mësuñoo xuloo ba ci mille sept cent ba ci mille huit cent ba ci mille neuf cent yëpp benn lañ ne ko nekk benn kii bañ dem ci mille euh, mille neuf cent trente tubaab yi ñu commencé nag colonial bi da tasaare ah diggante bugg ci diggante sori ci seetal Cheikh Omar Fouti luñ ko ñu ko def dikk ne yéen a ngi toog fii Cheikh Omar Fouti dafa dikk pour daani tariqa xaadiriya taxawal tariqa tijaaniya loolu ay rambaaje ko def te du dëgg bañ dikkee soufiyanke noonu leen rambaaje ak ak salaf yi salaf yi waaye boo demee boo demee euh, boo demee maa ngi taal téere boo xamante ni Mohamad ibnu ibnu Abdou Wahab dañ koo tuumaal ay tuuma ñu dem ne ko yaa wax mu ne waxuma ko yëguma ko sax nekk benn waay bi nga xosmaan moo dem ci xasim ne Mohamad Abdou Wahab wax lii lii moo fi nekk seetal boo demee kii ñi nga xamante ni mooy mooy mooy Eba Dramane seen njiit la Sofianke la woon kon nag lii yëpp mi ñun njàng nañ ko xam nañ ko waaye xale yi tey ñi nga xam ne ñoo not bëgg seen jël politique léegi seetal politique gu Saoudia ak politique gu ak politique bi nga xamante mooy Égypte kenn ku ci ne da ngaa jël politique gu colonial bi léegi bi maanaam comme démocratie ak socialisme moo tax ci fi nii comme l'affaire missionnaire mooy Ikhwan ku ànd ak ñoom jubóowoog ñett ñaari bi léegi nag si ay ñoom itam ku dikk na tudd ahlu bayt rek ñu boo ci bokk rek ñu ne doo ci dëkk waaw seddoo gi fu ñu ko jële ay tappalekat ay yàqkat lañ dikk nax ñu dugg suñ diggante ba tasaare ñu waaye li ñuy wax yëpp am fi kon nag woo bi aqwaal yi ci waxi bàyyi asaare ki yoo xam ne wax yu dëgg la mm-hmm. war afaali ak i jëfam mm-hmm. aljamila ci rafet yi واخلاق اكيدكم اسافيه شدي يني علمنا لي قام انه الشيخ ابراهيم لا يفعل دف مكو ما لو قام يقال في الوجود ان الشريعه شريعه وطريقه دف مكو وانه الشيخ ابراهيم لم يجعل دفل الله وفه تكتب من عاداتي بوك ادم في طريقه في طريقه woot fay du ma su am mhm. wax ma saalika ànd ak naka noonu fay nii man ahmad oustaz Gueye de mhm. raaytu gis naa inaa sat onaa sat ay nit mhm. ngay fecc moo tamit leen sukkandikoo bi aqwaali waxi waxi bàyyi fi kutu bi ci téeréem bi xëyri fahmi amul dégg-dégg xoolaka dañoo jël benn waxu bàyyi firee ko firi bu dëppoog nañ bëggee jaar cay fecc waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamante ni ñun yàlla bàyyi na fi ñoo xamante ni insha allah ku bëgg a lëndëmal ñu leeral ku bëgg a dugg ci lëndëm demal dugg ci lëndëm lépp ku bëgg a leer leeral nga nii nag mu ngi nii lan la bàyyi wax wasaana ilahi dahra nafsi la ura la yura amilu ila ma laysa fi sar'e jaay wasaana sàmm na ilaahi sama borom adahra fil adnaa gi daw yàlla sàmm def si nafsi sama bakkan bii bakkan bi dañ koo defal garantie immunité mm-hmm. laa yuraa defu gis amilum ma gis amiluma jànge ilaa maa jëm ci loo xamante ni lay sa jaay su doo nekkul dagan fi sariya kenn du gis man ilaa ma gis ma ci loo xamante dafa jóo ak sariya mm-hmm. boo diggee ku ko eh, de ku ko firi nag ak wala ku def jëlal jëf jë takkal ko setal isaa jaakal munaafiqo naafiqe ne ko yontu bi ma doon ñetti téeméer waaw ngay gis naafiqe def nga ne ko yontu yontu bi moo mel nii déedéet moo tax man ñii kon diine ñii kontor man bu ñu dikkoon ànd ak man ma ànd ak ñoom ñu kontor wan yoon ñii wan li nga xam ne lii mooy fen yi lii mooy dëgg waaye boo kontooree ci kontor bañ day yàq ñun nag dañ dikk weddiloo yu añaanaante bi maanaam ndax tubaab bi boobu gannaaw ñii ñoo la yàqal seen politique yooyu itam nga yàq seen politique yàqalante politique moo moo jaar diggante wali yi ak ñi nga xamante ni mooy ñi nga xam ne mooy tubaab ndaxte booba ñoom mënoon nañu wàllu yi dara mën nañu mën a ñi ne xamuñ dara waaye ñoom bu ñu dikkee mën ah, boo gisee yëpp waaye nag suñu mag ñi dañoo dëgëru diggante bi fi nekkee Maala Jëb Laay Cheikh Ahmed Bamba Alaji ak kilifa yooyu mënoon luñu leen dara ndaxte ñoom booba content comprendre nañu lu ñu wax rek ñu bàyyi noona euh, liggéey seen liggéey mm-hmm. mooy li ma wax nii lii liggéey suñ liggéey bii du liggéey coow seetal bañ yaakaaree foogoon ne kenn yaakaaroon ne na na tubaab yi xeexee saw yi ba lu nekk ci ndar jigéen ak euh, pale ndar mm. saw yi bi nekk ci biir euh, euh, ndakaaru jigéen te kii kenn yaakaaroon nañ toog ba ñu war naa sax ba ba def jot def jot mm. ñoom nañ liggéey xam nga réussir rek mooy problème guerre guerre da ngay xam na ngay gagné rek mm-hmm. su fekkee ne soo fi soo fi wane dangay ngay dañ la gagné foofu boo fi yéen dafa xaram sax ndax isa qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun ba mu fay booba lisaa ba am juróom fukki juróom fukki at yàlla mm. xeexu ba mu dem ba ba am doole nag doo ko xeex kon nag lii ñun ñun suñ jamono bi dañ xam xeexuñu lislaam man de ci sama bopp xam naa façon xeex boo xam ne buñ ma mënoon moom laa wax léegi su fekkee ne da ngay wax tubaab yi dañuy dikk dañuy dañuy dal suñ kaw te ñu wax wax ñu ñaaw euh, Macron wax wax ñu ñaaw ak waa ji nga journalisme bon boobu du ma leen wax dara xam nga lu ma leen wax dañuy fexe ñun ñu leen ñu ñu ne gars yi noppi leen bàyyi leen ñii sëti mbaam xux ak euh, dëngam sëti ay golo tey suñ mbaax gi ñu nekk moo leen naqari kan mooy maami euh, yahud yi xanaa mbaam xoox fan la woon da daawuda moo leen so moo leen soppal ay golo mm-hmm. kan moo soppal ay mbaam xoox xeesa mm-hmm. waaw kon nag ay sëti mbaam xoox ak sëti golo gis nga ci jàpp ko ci français anglais yépp nag dañuy rus gis nga loolu moo leen gën a mën a naqareel ci nga dem de manifester di toj toj toj oto yi mm-hmm. billaahi daal wax soo leen ko tey dañuy wax ne waa ñii <laughs> waaye lii waaye ñun dañ ne ne ñun dañu bàyyi suñ terrain guerre dem fekk leen seen terrain guerre ñu gañu ñun gis nga boo li ma yàgg naa ko gis nga nit maninam boo ko fekk ci maninam manifesta ak démocratie ak socialisme ak libéral dañuy fenn soxloon ci dara ba garambaay ji doo nga tax ñu indi ko ak yàq diine islam kon nag lii lu ma taxam la léegi nag Baye Niass nag wax na moom nag kon naa man doo gis mukk ma def loo xam ne dafa jóg sa réew. Mm-hmm. woo raaxisi naa am na ci feccikat yi. Mm-hmm. man koo xam ne yéex tamit mu ngi sukkandikoo mm-hmm. bi séer yi wéyam. fi bi xaw lii. wa in raqasa sakraan wa aw taara mun sidan. fa saalika min wajtin taqaddasa min labsin waaye ñoom mënuñoo firi nañ déglu ma firi leen. dégguñ grammaire dégguñ balax. tey ma leeral leen ko di ko bàyyi waxee xam ne ni ko waxee mooy wax ju leer woyin raqasa su naree fecc a sakraan ku mandi aw taara wala mun a mun sa dem di samaaw soo wuyee ba wuy fa saalika fecc na min wajjin nay nay tawaaju xam nga wajju mooy ñuy sikar ngay def nii yeminan si maanaam comme ni ko waxee fële ngay jaayu diggante ndeyjoor ak càmm tey muy jaayu boo xam ne buñ ko organiser kat xam nga waaye daayira boo xam ne fexe nañ euh, gàmmukat bu ñuy woy nañ fi ni leen nii ni leen nii waxuma loolu de da bàyyi kenn ku ci nekk sa xaal moo lay yëngal mm-hmm. ku xaalam yëngal mu yëngatu ku xaalam yëngatul mu bàyyi mm-hmm. waaye boo xam ne pare nañ dënd ya pare nañ tëggkat ya pare nañ ñu njëkk a fecc mm-hmm. pare nañ ñi ko rangee tëgg buñ tëggee ñi njëkk a fecc ak buñ pare ñeneen di tulli yooyu xam nga ne mos tey la yow su ma ko seet sax fecc nu musiciens yi sax moo gën seen fecc ndaxte musicien bu ñu bu ñu def kenn ku ne euh, yëf yi la euh, xaal rek nga nga fecc saal <laughs> ah kon nag loolu nag fa saalika bàyyi moo ne feccin xarif min wuj din na jaayu waaye nag seetal taqaddasa boobu na set min lépp si sax na fekk nag bu mu de jaay boo xam ne dafay jur lëntëm lëntëm mm-hmm. mooy lan xam nga léegi dañuy bokk otes waa daay yëpp jigéen ñi daal sol benn otes yéen yu weex mm-hmm. su ko defee ñu toog nga xamante ni nga maam kenn ko ne bu ñu kii ñu ne leen nii rek ñu jaay de waxuma boobu de yow kay yow yaay toog sa xol bi yëngatu boo yëgee sax ne yaa ngi jaay mën a tekk jaay boo xam ne yëgul sax ne xam nga léegi xolam nit bu xolam sa kii bu xolam ba neexee ba muy yëngatu ko de waaye ba taayoo xamante ni bakkan bi nga bakkan ba mën a ko déet moo tax mën a taqaada sa bopp kon ni ma ko bëgg firi si arab daf ne jumlatu ba dangaa jumla su baax nekk la tudd ndax tu ko jumla bari marifati xaalu jumla boo ko indee wax boo indee baat boo xam ne amul alif ak laam nga indi wax teg ca wax jooje da koy firee fireem naat dégg nga bu doon maarifa na koy firee fireem xaal ñoom nag dégguñ nëkkire bu wax ju dikk ca ganaam nuñ koy firee seetal euh, min wujjin seetal minam min min boo xam ne minam minam bayaan fasalika fekkino arif min wajjinnadi moy minan bayan min wajjinnadi tawajud tawajud taqad sa bop na set mi rax ma mi ah da nga na set ni la tun bi duñ ci lënt lënt am bu ci lënt lënt mooy lan mooy boo xam ne ñu ngi xoolante nga kontaan ma kontaan ñuy rey ñuy def nangam gënaa yu mbépp ku la gën a yëngatu waxuma boobu de est ce que yow kon gars yi nañu fii ci ndax bopp lépp ni bàyyi waxee li kon nag fuñ ko jëlee ci seen bakkan yi waxuñ dëgg te waxuñ kon nag léegi dañu yeboo ñu taxaw foofu ndaxte firi mi dafay xaw a gudd tuuti bu ëllëgee na ma commencé firi ko bu soobee yàlla incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.